رسول الله عليه خير صلوات الله ثم عليهم ليهدي معنا خطاب الإسلام والإحسان mbokki Sénégal asalaamaaleykum euh, mbokk euh, yi nekk ci diaspora bi euh, ñu dellu si waat tey ci les vidéos de Barthélémy Diaz di leen di baalu àq Euh, leen di baal di ñaan yàlla nañu yàlla boole jëggal ñuy fekkee ay déwén yu bëri euh, ginnaaw bu ñu sant yàlla mbokk yi euh, dañuy rafetlu tey décision bu président Macky Sall jot a jël mooy renoncer ci troisième candidature loolu mooy respecter constitution bi mooy benn bu ci tegu bi tamit mooy euh, respecter kàddu bu mu joxe euh, bu mu joxoon askanu Sénégal bu muy euh, proposer askan bi ñu votel ko wi ci référendum bi ma bëggoon dellu siwaat pour waxaat que ba ñuy dem ci dialogue bi te ma ci insister parce que tey dafa am ñu bëgg lëndëmal xel yi bëgg yàq xol yi ak yàq xalaat yi su ma baat ci kaw Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xaar ñaar Sénégal dañ koy pencoo waxtaane ko ngir ëllëkam euh, parce que lu ñu gëm ñun mooy ci jàmm la lépp xaj moo tax ma ne dinaa dellu siwaat tey ci vidéo yi njëkk a interpellé président Macky Sall ginnaaw bañ ko jaajëfee euh, wax ko ko dialogue bi mën nañ continuer di waxtaan parce que am na ay point naam point yu ci ëppoon solo yàlla def na ci sutura wante am na ay yeneen point yu ngeen xam ne nii wax dëgg yàlla euh, mën nañ continuer di toog di ko waxtaanee politique may biiralaat wax ji nee naa politique mën na bañ a doon une science exacte wante xel mooy politique may sàkku ci président Macky Sall ci yar ak teggin ci jàmm ak salaam ci dëkkandoor ak mbokk na bàyyi xel ci lu ñuy sàkku ci moom mooy élection inclusive ñëpp mën a bokk ndax xel yi mën a dal te lu tax may insister ci loolu parce que daanaka dafa am ñuy fural wante askanu Sénégal yan lay waxal Sénégal su ma baat ci kaw te ñëpp ak may dégg amugul benn acteur politique fii tey Sénégal bu fi am 30 pour cent premier tour élection présidentielle moo tax may sàkku ci président Macky Sall Euh, na def kenn kàttanam ba élection bi mën a nekk inclusive bien sûr pour ñuy respecter euh, les conditions pour mën a bokk ci élection yi parce que euh, am na élimination loolu moom la ñuy ñaawlu mooy sélection bu ñu bëgg a organiser à la à place de élection wante nag am na ñu ngeen xam ne ni du ñu mën a bokk parce que tamit dañu bokk ci république te république dafa am loi ak ay texte wante ñu ngi insister ci lii di l'inclusion euh, de tous ci élection yi parce que lu may wax ni lu tax mu am solo dernière élection bu ñu amoon Sénégal mooy élection législative ñu ànd ci ak njabootu président Abdoulaye Wade ci cadre intercoalition Yewwi Wallu donc mbooloo boobu bu jógee woon bàyyeeku ci ñaari coalition yi créer intercoalition moo joxoon élection yi ñu am à peine cinquante et un pour cent kon tey waa PDS su ñu demee ba wootee ñoom dañuy dem élection am candidat ñun waa taxawu Sénégal avec la gauche euh, ñu ne tamit dañuy am candidat mu am ñeneen tamit yëkkati seen loxo ne dañuy doon candidat gisuma lu tax tey ñu bëgg éliminer ñenn ñi wala ñuy joxe impression que ñu bëgg éliminer ñenn ñi naam am nañ droit fural wante su ma baat ci kaw amul kenn kuy gagné élection Sénégal tey premier tour amul kenn. ku mu neex nag yëkkati loxoom ku mu neex fëgg dënam dama ne su ma baat ci kaw matagul at ci ginnaaw njabootu laay Wade ak njabootu Yewwi Askan Wi ñoo lëkkaloo joxante loxo pour am appen peine cinquante et pour cent kon nag nañu respecté Sénégalais yi parce que gisuma tey naka la njabootu Ablaye Wade mën a am seen candidat njabootu xalifa Sall am seen candidat ñeneen am seen candidat ñit fëgg dënam ne tey day gagné premier tour moo tax may sàkk sàkkuwaat ci président Macky Euh, na may ñëpp aafiya ñëpp mën a bokk ci élection yi ndax xel yi euh, mën a dal xol yi mën a féex mooy suma gëm-gëm mooy suma gis-gis mooy suma xalaat beneen bi nag mbokk yi may lancer un appel a tous nos amis de la gauche tey candidature bu ñuy porter à travers la modeste personne de Khalifa Ababacar Sall candidature boobu c'est une candidature de principe candidature de valeur candidature d'avenir euh, naam dëgg la am na ñuy naagu di fàtte ma leen di fàttali que lu ñu jëlee parti socialiste lu tax ñu dàq ñu ci parti socialiste tëj ñu ci kaso bi presque ñetti at mooy parce que dañu yëkkati woon suñu loxo ne dañu am ambition bëgg jiite Sénégal bëgg liggéeyal Sénégal bëgg tabax ëllëgu Sénégal loolu moo waraloon ñu tëj ñu ci kaso bi dàq ñu parti socialiste fokk te suñu ay mandat moo tax socialiste yi ñu ngi leen di tàllal suñu loxo yi te incha allah am yaakaar ci ay fan yu néew dinañ mën a toog waxtaan waxtaan waxtaanu Sénégal ak waxtaanu ëllëgu Sénégal parce que ku tudd Sénégal di nga tudd tamit euh, démbawu Sénégal te ku tudd te ku tudd démbawu Sénégal di nga tudd. lu parti socialiste jot liggéey Sénégal euh, mbokk yi ngeen même wax ak ndaw ñi euh, yenn ndaw ñi yenn la jeunesse du Sénégal yéen yaa leen di ëllëgu Sénégal euh, waxu dialogue bi il y a eu beaucoup d'émotion il y a eu de passion wante bu leen nangu kenn di lëndëmal seen xel wala di yàq seen xalaat dama ne jàmm ci la lépp a xaj tey yàlla defaral ñu sutura président Macky Sall nangu respecté kàdduwam bu kenn yàq seen xel pour ngeen dem def defi leneen ba may président Macky Sall prétexte pour mun moom tamit bu dem defi leneen te xam ngeen fu may waxee ay ndaw ngeen yàlla may na leen xel macha allah te nu ngeen di ko waxee yéen xale yi na ngeen yéen da ngeen dégg daaj ma ne Sénégal du moo moomeelu kenn ñun lu ñu mën ñu ngi koy dox lu ñu mën ñu ngi koy wax lu ñu mën ñu ngi koy jëf mais dañ koy def ci kaw lu ñu yoon may ci sañ-sañ dama ne képp kuy wut nguur Sénégal benn yoon kese la la yoon may nga am sañ-sañ di ko wuti ci yoon boobu mooy yoonu élection amul beneen yoon amul beneen yoon constitution bi mën ngeen ko gestu ngeen xool ko côté bu nekk benn yoon kese la leen constitution may pour mën a conquérir le pouvoir mooy ngeen jaarale ko ci ay élection amoon na ñu ñu seen xel ñaawoon ñu jàpp ne ni que président Macky Sall namul organiser élection wante lu ñu mën a jàpp tey mooy président Macky Sall nangu na respecter kàddoom mooy benn bu ci tegu tamit ma leen di rappeler au passage que moom kese la yoon may sañ-sañ mu mën a signer décret présidentiel pour convoquer corps électoral man leen may yéen askan bi ngeen tànn kan mooy doon seen njiit kon nag bu leen may kenn mu leen di dugal ci guuta ba guuta boobu mën a doon excuse pour ku mel ni président Macky Sall dellu si waat ci décision te lu may wax dafa am solo mbokk yi dama ne réew mi du moomeelu kenn ñépp ko bokk fii su amulee benn kilifa diine bu fi am xalaat que dëkk bi moomeelam rek kon daanaka ci gàttal amul benn politicien bu fi mën a juum ba xalaat ne que dëkk bi moomeelam la moo tax mbokk yi ñu fi yàlla sax yónni moo xam Jésus Christ moo xam le prophète Mohammed paix et salut sur lui l'injustice a toujours fait partie du monde des hommes noonu la àdduna tëddee kon nag képp kuy jullit jullit mooy kuy julli yaa xam catholique nga yaa xam musulman nga jullit nga da ngay julli da ngay nangu gëm yàlla teg ci nag wóolu yàlla parce que lépp lu doomu aadama di dund ci kaw suuf si balaa muy juddu yàlla bindoon na ci destin que lii dina ko dund moo tax ñun lu ñu gëm mooy lépp lu tubaab di woye épreuve de la vie moo xam bànneex moo xam tiis moo xam mettit su la ko yàlla tegee moo xam da nga koy gisee mel ni nattu la na ko dund dund ci ànd ci ak diine ànd ci ak gëm yàlla ànd ci ak wóolu yàlla loolu mooy jullit ku fi woote leneen maa ngi jégalu ci kàddu yi dama ne Sénégal du moomeelu kenn ñépp a ko bokk ku fi bëgg a woote nag mbiru naaféq na ko na ko xale yi dëggee noonu na ko askan bi gisee noonu wante dama ne taal Sénégal yàq Sénégal bëgg a Sénégal ci guuta ndax sa bëgg-bëgg kooku wax dëgg yàlla duñ ci mën a ànd ak ñooñu duñ leen ci mën a jàppale lu ñu gëm tey may profité waat ci occasion bi pour tàllal suma loxo yi à toute la classe politique yàlla kese moo xam kan mooy utu président Macky au palais de la République mais particulièrement ak à la coalition ñu jàppee seen bopp ñoom ñooy représenté opposition nañu xoolaat seen taxawaay xoolaat fan la leen sénégalais yi teg ak ban yaakaar la sénégalais yi am ci ñoom amul fenn ci charte coalition opposition fu ñu bind ni que ñit mindeef moo ñu tax a jóg mindeef taxu ñu jóg Sénégal la ñu tax a jóg injustice nag bu ñuy teg ci kaw yenn mindeef yi ñun ñëpp gis nañ ko te balaa ñu koy gis ñun ñi dañ ko dund ñun ñii dañ ko dund suñu suñu biir suñu biir Euh, coalition taxawu Sénégal dund ko aussi bien ci humiliation que ci manipulation ci une fois de plus injustice notoire mais lu am solo tey mooy yàlla tey ci mbaaxam àtte na tey incha allah ci ay fan yu néew am nañ yaakaar dinañ bokk ci élection yi bokk ci élection yi nag lu ñu tax a jóg mooy pa falu falu pour falu loolu moom amul sens amul solo lu am solo mooy lu ñu doon xeex ci coalition di ko wax askan wi di ko doxee ak askan wi ba yàlla may ñu ci ndam tey nañu askan wi gis ñu doon benn say di xeexal askan bi di waxal askan bi ngir ëllëg ñu mën a am yaakaar liggéeyal askan wi euh, mbokk yi nag fu may daanalee mooy woote une fois de plus à la lucidité à la sérénité au calme lenn rek fi am solo mooy l'essentiel te l'essentiel mooy Sénégal loolu laa bëggoon wax bañ a guddal di gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaan nag yàlla yàlla continuer di kattanal Sénégal di fi yokk sutura biir euh, biir euh, biir réew mi te di may tamit askanu Sénégal aafiya ndax Sénégal mën a jëm kanam ñu ngi leen di gërëm mbokk yi di leen di sant te di leen di ñaanal jërë ngeen jëf mbokk yi wadi muhammadin rasulillahi alayhi xayru salawatullahi summa alayhim liyatimana xatab alislaam wal ihsana bi hurmati siddiqi wal faruqi judliya bil ikhlaasi wat tawfiiqi